tabaxaat lu bees lu bees loolu ñu gëm ni tabax bi dafa war a tàmbali ci gox-goxaat yi. Mhm. parce que comme ni ñu koy waxee kenn di tabax di tàmbalee toiture. Mhm. fondement rek ñuy tabaxee te yi mooy gox-goxaat mhm. moo tax ñu dem benn tout un système boo xamante ne soo si jëmee dina fexe ñu delloowaat nit ñi si gox-goxaat yi parce que très souvent su ñuy wax ni ku war a nekk président de la république da war a nekk maire waxuñu ko noonu rek pour noonu. c'est juste une façon de delloo nit ñi. ci politique locale bi c'est-à-dire de recentrer l'action politique au niveau local mhm. pour que les plus méritants les plus engagés ceux qui ont plus d'idées intéressé wu à la vie politique locale parce que ñu bëri intéressé wu leen. Mhm. te pourtant am na lu ñu mën a indil Sénégal. pourtant on dit souvent que certains euh, présidents Sénégal euh, kenn wala ñaar mos a nekk maire Abdou Diouf la xaw Ablaye Wade. Mhm. je sais plus lequel mais pourtant ils ont marqué leur époque avec te gëm naa ne Sénégal gu ñu am tey baaxul fekk nag loolu lañu bëgg koon ne di nit di jóge fële rek soo duggee nekk ci système bi ñu ne baax nga nga am comportement yoo xamante ne dafa doy waar ma ñuy seetaan est-ce que duñ neex euh, nga baal ma ah. mhm. xale bi il n'est pas prétentieux parce que euh, li fi nekk Sénégal depuis boobu ba tey euh, temps wu Senghor même bien avant Abdou am Abdoulaye Wade tey jii nii Ahmed jàlloo ñëw dëgg la jàng na am na xam-xam bëgg na réewam mais voilà il di que li fi nekk di boobu ba tey baaxul lañ ko war a soppi naka naka lañ ko nit ñi mën a comprendre waaw non xam nga dama gëm ni nekkul Ahmed Diallo moo xalaat loolu Sénégalais yi tey soo génnee di waxtaan ak ñoom dañ lay ne dëkk bi nu muy doxee maanaam koo xamante ne tey soo ko falee euh, démb kenn xamee wu ko woon genn alal gi. Mhm. balaa mu fay génn jox alal goo xamante ne mun na dundal askanu lëmb si ay génération nekk milliardaire tey euh, dëkk bi nga xamante ne nit dina nekk fonctionnaire. Mhm. ñu ne milliardaire la ñu ne am na alal te du rendre compte kenn xamul fu mu ko jëlee dëkk bi nga xamante ne comme lu gars yi di wax toog muy dox moo fi am. Mhm. loolu noonu vraiment koo xamante ne doy na la peut-être yaa ngi siy bénéficié woo mais ñoo xamante ne bénéficié wuñ ci jotuñu si. ñu ngi jaayante. seen bakken génn dëkk bi di reyante si géej bi ñooñu mun mënuñu gëm ne système bi baax na mais nag foo gis am na ñoo xamante ne mën nañu gëm ne lii lu baax la parce que ñoom ñu ngi ci gis seen bopp. Mm-hmm. waaye lu ëpp ci sénégalais yi gisuñu si seen bopp dëkk bi euh, dafa jafe. moo tax gis nga euh, ku ci mel ni euh, Mamadou Mouhamadou Ba te mu nekk ministre de l'économie. Mm-hmm. moom souvent damay jël modèle exemple ci moom parce que bëgguma citer mais c'est c'est important parce que dama koy déglu souvent muy wax et puis di naan boroom xam la xam na lu muy wax. mais moom mooy modèle koo xamante ne tooko bi da ko laal bu baax. moom il n'est pas politique pourtant. waaw il n'est pas politique te à l'Assemblée dernièrement il faisait l'unanimité opposition pouvoir. ñëpp ko doon saluer liggéeyam. xam nga loolu mooy c'était le début. waaw xam loolu mooy ne ne noonu la réew war a doxee. Mhm. mooy réew ñëw nga ne ah est-ce que agrégat yoo xamante ne bëgg na ko pour mën ñu lebal baax na loolu nag la ñuy lijjanti mooy da ngay xool dëkk bi ah ñun suñu taux d'endettement baax na parce que FMI nee na baax na. ah ñun nu ñuy gérer suñu finance baax na parce que FMI nee na baax na suñu demee nañu lebal xaalis ndax ñoom kontaan nañ ci ñun. Mhm. léegi daa am ñoo xamante ne loolu lañ jàng ñoom loolu état léegi loolu la ñuy répété léegi nag FMI xam nga nu muy def ak yenn organes yi dañuy xool ñu nga xamante ne mën nañ répété loolu mën nañ ko doxal suñu paree seen carrière ñu jox leen récompense promouvoir leen dans les institutions internationales. Mhm. xam nga tey dafa ruslu euh, nga nekk ministre de la république. liggéeyal Sénégal ba sénégalais war a kontaan si yow mais bu nga paree sénégalais kontaan si yow mais benn institution bu nekk fële. wala benn ONG moo lay félicité jël la nommé la. mais pour le cas de Mamadou Moustapha Ba. Euh, malgré tout le bien qu'on pense vous pensez c'est pas. du du nit gën ci ñun. gëm naa ni nekkul intention bu bon. waaye dafa jël idéologie boo xamante ne baaxul. xam nga dañu nekk jamono boo xamante ne dañu war a changer l'idéologie qui gouverne ce pays. Mm-hmm. c'est une idéologie qui pousse à servir d'autres intérêts. te ñoom am ñoo xam ne nag dañ koy def de bonne foi mais il faut ñu xam ni intérêt Sénégal la war a servir